daje bi tey section wu forom civil bu Notto ñoom ñoo ko organisé kii nekk sama wet mu di monsieur Mbaye Paate ñoom ñoo organisé mbir mi yemul rek ci fii fan yi dem nañu ci yeneen gox pour waxtaan ak population yi pour population yi xam affaire suuf si lan mooy seen yelleef ngir ñoom ñu mun a xam ba fan la ñu mun a euh, euh, wax ne lii ñoo ko moom wala lii moomuñu ko donc daje bi tey lool lool la jublu maanaam leeral nit ñi ñu xamal leen sensibiliser te xam aussi tawatu nit ñi parce que population yi ci projet yi jot a am feeñ na ci waxtaan ko ñoom kenn laaju leen kenn boolewu leen ci mbir mi loolu mooy wax ji rek ñi ko def mooy ñi nga xam ne mooy seen njiit yi dëgg la am nañu njiit mais njiit da nga war a buñ la sasee boo waree dugg ci mbir nga dellu ca ña nga xam ne ñoom ñoo la fal ndax ñoom ñoo tax ñu nga falu donc ñooñu boo leen laajulee dem di dogal te la ngay dogal laaju leen ca boo deful nag du leen neex loolu moo indi wax ji yëpp te yaakaar nañu bu ñu toogee waxtaan te tey nit ñi toog wax seen mer wax seen xalaat moo gën ñun denc ko seen xol euh, ëllëg muy indi ay ay ay jafe-jafe loolu daal la ñu jublu ci waxtaan bi te yaakaar nañ ne ñëpp d'accord nañ ne waxtaan boobu war am ñii ñii di jiite di dogal war nañu di rendre compte ñi nga xam ne ñoom ñoo leen fal ñooñu tam xam nu mu demee wax seen xalaat bu ci ki nekk indee sa xalaat dina am njëriñ ndax projet buñ ko défé tam pour njëriñu population yi la wa mais nak il faut que population yi mën ci profito lamay mujjé moy affaireu souf souf du tawéku donc njëriñam war nañu ko chambar ñu wara xamné dëkkuwaay bu nek gox bu nek war na mëna xam suuf sa fa naka lañ koy jëriñoo lii li jëm ci dëkkuwaay yi lii lu jëm ci li ñuy béy lii li jëm ci loo xam ne kenn du ko laal ndax dañu ko fiy denc pour su àddina jëmee kanam ak ñeneen génération yii ñëw ñu seet loolu lan lañ ko mën a jëriñoo lii mi ngi jëm ci suuf soo xam ne day seet gàncax gi nekk ci biir suuf ñu exploité ko loolu yëpp lu jar a xam la lu jar a tëral la pour que gox bu nekk problème yii ñu am nii tey ñu koy éviter loolu daal nguur gi en tout cas état bi war na ci bàyyi xel te loolu bu koy def tam daf ci war a concerter ak citoyen yi ndax wax nañ ko ba tàyyi constitution moo may citoyen mu saytu li état di def état constitution daf ko ne na nga informer sa sa sa citoyen ci la ngay def te nanga nga rendre compte sa citoyen ca lañ la dénkoon bu problème je m'appelle Pat Mbaye coordonnateur du forum civil à Noto par ailleurs président du conseil communal de la jeunesse donc aujourd'hui nous nous sommes regroupés aussi dans le cadre d'un forum citoyen donc sur la gouvernance foncière pourquoi ce forum donc nous avons jugé nécessaire de l'organiser et c'est venu à son heure parce que Noto comme chef-lieu de commune donc dirigé par le maire Alinsar, donc traverse des problèmes concernant le foncier. Il y a plusieurs projets d'envergure nationale donc, qui sont à notre Il y a les domaines agricoles communautaires, il y a la question de la carrière donc, que l'entreprise chinoise exploite pour les finalité donc euh, de la construction de l'autoroute Ilatoba. On a vu que toutes ces questions-là sont en train donc euh, d'amener des tensions dans ces zones-là, dans des localités où les choses se passent et que pour aussi pallier à ces tensions, pour aussi rendre paisible donc la localité parce que encore une fois une localité ne peut se développer que dans la paix que dans l'harmonie de cœur donc pour lutter contre ça donc pour apporter des solutions et de rendre aussi le pouvoir à ses attributs citoyens de rendre aussi euh, vraiment l'intérêt général donc à sa place on a jugé nécessaire d'organiser le forum pour appeler la commune appeler les population pour qu'on puisse autour d'un table se concerter donc sous euh, la présidence du représentant de l'État, sous aussi euh, la présence du forum civil pour voir comment on pourrait concerter et de trouver des solutions éventuelles pour pouvoir continuer dans la paix, développer la localité. J'enlèverai peut-être ma casquette de président de conseil communal et celui peut-être du coordinateur de forum civil, donc pour devenir l'homme de terrain que je suis, qui exploiterait des carrières dans des zones, qui construisait des routes en tant que polytechnicien de formation. Et sur ce domaine aussi, donc j'interpelle l'autorité. Il faut que aussi qu'on puisse revoir la chose, il faut que la population soit informée, il faut que l'accès à l'information soit assuré, parce que aussi la carrière dans les zones où ils se trouvent donc doivent bénéficier aux populations. Dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, donc je pense que c'est clair, je ne tirerai pas en longueur, mais une carrière et encore une fois apporte des nuisances à la population de par la poussière qu'elle produisent, de par les bruits qu'elles engendrent, de par les phénomènes qu'elle apporte, les accidents, les inondations, j'en passe. Donc vu tous ces problèmes-là que les carrières engendrent, donc la responsabilité sociétale d'entreprise voudrait que, donc, que ça soit compensé. Comment euh, les carrières dans les zones, ils doivent construire des écoles, ils doivent construire des postes de santé, ils doivent construire des hôpitaux modernes et ils doivent penser aussi à la population. Ne serait-ce que aussi les populations qui ont des terres au niveau de ces zones-là, donc on ne peut pas exploiter ces carrières sans autant discuter avec eux, sans autant se concerter avec eux. La souveraineté donc appartient au peuple, donc le peuple doit décider, la population doit être impliquée et la population a toujours son mot à dire. Carrière B, euh, commence exploitation l'exploitation? te

ndaxte ñun fii ay taalibe mu kese fi ne daara yi sëñ Saaliwu ngi nii sëñ Saaliwu daawul jóg diggante pour taseet ak xabaan kenn gënuñoo bëgg tuuba am na nu ngeen ko doon doxale boo leen ñëwee ñu may leen suñu xër yi du lañ ci laaj ñaar dërëm waaye nag dëkk bi xool lu mu ndóolee suñu courant ñaata at mu ngi nii mënuñu fexe ba wax dëgg yàlla lu doon tàkk sax ci mbedd yi sax faf na fay boo waxuma la sax pour mu dugg ci biir kër yi te pourtant fay nañu caution depuis ay trois ans pote yaa ngi nii di daanu CM baa ngi nii amul clôture xool nañu gérer carrière bi amul benn doom pour Jobaas boo xam ne mu ngi ciy liggéey carrière dafa am numéro mu tëddee. Mamadou Faye membre du comité de pilotage et de défense des intérêts du village de Poudjak Oh, ak ndaje tay bi forum civil moko organiser buñ parcourir le document amna question yo xamné ne posées ko fa mun poser muy question foncière ñun wa pour dañu am ben problème problème bi moy suñu carrière té léegi lire ma document bi dama dégg population bi ak élus locaux dañoo en parfaite concertation mais voilà le problème diganté population pour diak ak les élus locaux ben waxtan amul sen diganté ñun dañu xey rek gis ñuy gas ñu carrière carrière bo muy carrière publique carrière publique bi nak problème bi moy day avancer di laud di dem ci bi dekk bi te franchement ku jaar ci yoon bobu gis nga kër yi fuñ nek ak carrière bi il y a tellement de conséquences lol jaruma ko fi répété bari nañ ñëpp xam nañ ko.

man sama laaj ñaar la suñu carrière public bi bi nga xamantene da nga ñew consulter wa pour jaak wax wax ci ak ten yeyo ci yabi ak ten nga ñew indi say chinois ñukoy exploiter sans accord wa pour jaak may laajte lolu ci ban base nga ko tek ñaareeli question bi ma ne dañu jóge ci lu ñuy wax li réforme institutionnelle mu tënkoon quinze ñu waxoon ci point foncier bi ci li ma ci jàngat mooy ñun suñu tool lañu am suñu suuf lañu amuñu pétrole amuñu dara léegi lan moo leen may sañ-sañ ngeen ñëw di exploiter carrière publique bobu tout lu ñu voté won ci référendum bi nek fi loolu dal def ma ëlëm ma bëgg ñaari question euh, monsieur Mbodj ma ngi lay nuyu di la beral loxo di né sen waji question boobu maa ko laaj parce que dafa am lu ñu dund ci élection locale 2014 nga xamante ci gox bi la xewé parce que monsieur le maire Alioune Sarr dafa jël ay membres société civile dugal leen

élection yi ñëw ñoom ñu voté ko ñu gagné ñu jógewaat fële ñun ñom ay société civile la ñu kooku je ne suis pas d'accord accord ndey ju Cheikh nag jaaxaanal lay tëdd. fi carrière bi espace ni carrière publique la carrière publique la donc de tout temps état moko mom moom moo ko exploité même bu doon Ila Touba bi yalla Ila Touba bi rek ba ñëwé ñu dal li indiquer en tout cas après seen sondage en tout cas carrière bi woné ko mën a mais buñu ñu fàtte tamit ne pour il am na fa ay conseillers yu ñu bokk ci mairie bi je pense que euh, la mairie ne pas appelé tout pour Jack, en tout cas dans une salle ils ont un représentant seen représentant en tout cas dégg na keroog ñu wax avant délibération bi man j'étais là-bas léegi a Touba bi c'est un problème d'intérêt général d'intérêt national pour ñu mun a en tout cas def a Touba bi. ba may tamit je pense que informer nañ ñu waroon informer ba tamit ñu signé bi ñu wax benn convention ñoom ak chinois bu ngeen xamoon fi ñu jógee ak fi ñu toll fi mu nekk nii parce que information euh, bu occasion yi su amee day ñu ñu wax ko xëy na je vais être complété par le tonton du maire. journal bi ñu njëkkee ñëw xam nga rek ñoom c'est des privés xaalis lañ bëgg ñu ne ñoom 3 kilomètres la ñu may buy exploité carrière yi 3 kilomètres la ñu mën a joxe 3 kilomètres. je pense que ñun ak le maire ak également ñeneen bëkkante nañ chinois yi bëkkante yu métti métti métti am léegi 25 kilomètres.

je pense que c'est 343 millions. 343 millions. xeyna bu doon yeneen élu yi la dañuy gis seen bopp ne eh nañ gis chinois yi jox ñu xaalis def suñu puir poche campagne ko population bu gis jox ko 20 000 francs 10 000 francs 15 000 francs mu ne teg sa maire bi ni mu baaxee gars yi ni mu baaxee mais je pense que lii intérêt public la la roon tamit parce que euh, bu fekkoon ne occasion bi amuloon du tout pour am ay piste de euh, des pistes de production entre na au niveau du jobas dina xaw a pak mairie bi atana ko te gisuma man partenaire buy tabax fi nek ay tali partenaire banque mo lay mën a lebal xaalis nga dem tabax fay ko banque mën lebal xaalis nga dem tabax fay ko mais ap ap ap ki ap ONG nela xaram tabaxal en tout cas yoon parce que yoon dafa cher kali bu ñuul bi ben kilomètre bi ça tourne autour de au minimum 40 millions ben ben kilomètre xëy na nekk stratégique en tout cas moo tax affaire bi coût bi war a ko li ñu wax nag problème yi carrière privée yi effectivement c'est des champs ay tool yi lañ ñu koy béy mais ñun chinois ñoo nañ ci ñun waxtaan nañu yomb dañoo jël une commission chef CADL moo ko jiiti dem nañ plusieurs fois en tout cas sur le terrain sur le terrain natt borom tool yi ndax carrière la bu ñu war a exploité borom tool bi sa carrière nangam yi nangami hectare la nangami hectare la li nga ci doon béy nga ne waaw lo ci doon am nga ne nangam je pense évaluer à pour cinq ans defe ma jox benn exemple boo da nga doon am cent cinquante francs chaque chaque hivernage bu jexé nga am cent cinquante ñu multiplier ko par 5 fay la ko man de xëy na en tout cas yalla dimbali man en tout cas bima nekké dans le même là vers euh, ci ICS lu mel dañ daf ñu faa dal parce que phosphate bi dañuy dañuy progresser rek ñoom am na benn tool benn dëkk boo xam ne wax ma tool ne dëkk entier dañ ko délocaliser dëkk bu ñuy wax Ndoyeen booy dem Taïba Ndiaye ku dem côté di nga xam dañ ko délocaliser complètement utal leen beneen beneen site tabax fa tabax fa en tout cas dëkk ba parce que temps yooyu lan la woon da ngay ñëw ñu xam ne fii phosphate moo fi nekk dëkk bi phosphate moo fi nekk te dañ ko soxla dañ ko war a ñoom ne la en tout dañ ko war a exploiter ñu waxtaan ak ñoom parce que réew yi tàkk yëpp ci àddina bi ñàkk waxtaan moo ci nekk ñàkk waxtaan moo ci nekk je pense que lu mel nii illustré na vraiment volonté bi nga xam ne volonté bi am ñu ngeen def seen engagement bi ngeen def pour mun a en tout cas apaiser lu bëri loo xam ne mun naa yëngu ci biir gox bi carrière yi nga xam ne moom la ñu exploité tey ma ne ñetti carrière la ci Jobaas benn bi pour dàq la ne benn baa ngi pour dàq ne benn baa ngi sànge donc ñetti yooyu ñoo ay carrière

ci la laal Dakar Mbaye jëlee ko Dakar Mbaye bay génn si tawaan muy 5 kilomètres ci li nga xam ne dañ koo génn te fa mu nekkoon duggal ko ci diwaanu Diobass du cinq kilomètres yëpp la ñu moom nag mais li ñu changé yëpp 5 kilomètres la ñun dañoo toog ba euh, chinois yi nekk ci àll bi di def seen sondage ñun ko nit ñi borom tool yi ñoo ñu interpellé ne ñu am na kat ay oto yu wër fii di gas.

ñu mën a exploiter daar daar li nga xam ne mooy seen demande bi te boobu yaakaar naa entre c'est entre le mois de mai et le mois de juin bépp béykat mënutoo xalaat ngay jël toolu jaamu di ca def dara fekk jiw na ca ba pare donc loolu ñun mënuñu ko woon euh, xalaat si la ma maire wax ne man lii wax ak yéen ci conseil bi na nga ak conseillers yi ci loolu demande boobu man nii man maa ci communiquer ba conseil ba dajee ni ko ma dajee euh, dafa mel ni sax ne maire fekkewu ko man maa ca communiqué wax leen demande euh, chinois yi ni mu demee ak lépp li nga xam ne wax nañ fi donc ñun en tant que commission domaniale demande boobu dañuy continuer di ko euh, traité donc la noonu la mbir mi ñëwee bu ñu ci conseil bi itam bi ñu ci jógee dañoo convoqué chef du village yi toujours ci communication laa wax de muy chef de bu Pout bu jaata ak bu taateen ñoom ñu ñëw teew ñu ne loolu doyul ñu convoqué waale yëpp ñi nga xam ne ñoo fa nekk ay conseillers ñu ànd ak ñooñu ñëw fekk ci commission domaniale bi ñun ñu waxtaan ak ñoom joxleen xibaar bi ne leen ku dem léegi na nga jokkoog sa waa dëkk jokkoo leen saan waa dëkk ña nga xam ne ñoo moom fa nga xam ne dafa am sondage yu ñu fa def defal luñu seen liste bu ngeen defee liste yooyu ngeen indil ñu leen ñun ñu convoqué leen waxtaan ak ñoom noonu lañ def euh, chef du village bu ngolaar moo jëkk réagir ba mu réagiré indil ñu liste liste boobu ñu convoqué leen wax ak ñoom man mii maa dem ba sur le terrain wax ak ñoom wax ji mu am ba jàppal bayil ñu leen dem leen après dinañ leen convoqué waat donc ci ñun loolu noonu la ñu ak nit ñi bay ñu exactement lan mooy carrière yu njëkk yi